Okay, alhamdulillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجي دل سوات كي سنتيري بني توب دي منهاج المسلم بو أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله يكسي وانتي li ñuy tuddee jumlatu ahkaam waroon na jël tey almaadatu rabia fi lxasb almaadatu rabia fi lxasb ñu yormol bu bees bi yaakaar naa ñi ngi ci page 337 fi lxasb ñi sant suñu boroom jalla wa ala di fàttali rek loo xam ne biig ci guddi ñu ngi koy fàttali mbokk yi ci ngëneelu jëf yu màgg yi bokk na ca loole mooy képp koo xam ne danga dem ca julleekaay ba ca jàkka ja julli ba pare toog ca jàkka ja da ngay gis ne malaaka yi duñu deñ malaaka yi duñu deñ di ñaan yal na la yàlla jéggal yal na la yàlla yërëm féeg sa njàpp tëjul bokk na ci it lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bis génn na ca jàkka ja fekk leen ci saxaaba yi julli timis ba pare toog di xaar géeg a jot mu génn mu ne leen seen borom yàlla day mi ngi nekk di puukarewu ci yéen naan xoolal sama jaam yee dem nañ joxe sama farata wëlbatiku waat toog fa di xaar beneen farata kon loolu moo tax ba ñu ci profito diggante ñaari julli yi jaare la ci dars te loolu yeneen ci bi alayhi salaam da ko doon tuddee loolu ci ribaat la bokk mooy dem ca frontière ul islaam ngir benn noon du dal ci jullit ñi bokk na ci yool ba nga koy am mooy dem ca jàkka ja julli ba pare toog xaar ba ñun julli kon tuyaaba jooju yal na yàlla jagleel ñu ko su dee mbokk yépp bokk nañu gis fi ñu yem fil xasb mu ne kon taarifuhu buñ la ko doon xamal alxasbu huwa al istillaau ala maalil gayri qahran li nga xam ne mooy noot alal mooy nga daal di féetewoo ci alalu keneen ci loo xam ne danga koo not ci sa kattan bi gayri xaqin ci loo tegul ci benn aq wa zalika ka an yastaw liya ahadun ala daari ahad loolu mi ngi mel ni mu daa di féetewoo kenn kërug ka ca des fa yaskunaha aw daa mu daa di koy dëkke aw daabati ahadin fa yarkubaha wala waruwaayi nit mu daa di koy war kon mbokk comme ni mu ko waxee gasb mooy nit dem jël alalu nit la tax mu jël ko mooy ëpp gum ko ëpp doole ëpp gum ko ëpp doole suñu borom yàlla dana ko wax ca diggante Muusa ak Xadir ba ñu yéegee ca gaal ga Xadir daa di ñëw rek dajji benn planche ndox mi walwali ci biir gaal gi Moussa ni ko waaw da nga bëgg a labal waa gaal gi gis nañ ba ko xadir di firil mbir mi mu ne ko Moussa ñi ngi waroon a dajeeg benn buur te buur boobee bépp gaal gu baax gum gis da koy daal di jël yaxuza kulla safinatin gasba looloo tax xadir yàq gaal gi ba ñu romb buur bi ak armeem suñ koy defar doo koo defaraat loolu kon mbokk mi mi ngi noonu léegi nag xukmuhu lan mooy attey ci loolu الغصب محرم بقوله قول الله تعالى jël alali nit ci doole day araamal nañ ko te waxi yàlla ya waxi yàlla ja wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil te mooy ngàllawaay bu leen lekk leen te seen alal ci seen diggante ci neen ca loolu gis nañ ne ca la bokk wa qawli rasuli sallallahu alayhi wa sallam ala inna dimaakum wa amwaalakum alaykum haram mu ne ay wayin julit xam leen ne seen deret ak seen alal day aram na ci yéen aram na julit tuur deretu mbokk julitam aram na julit lekk alalu mbokk julitam wa qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi daana waxit ne man iqtataa min al ardi shibran zulman koo xam ne daa jël ci suuf loo xam ne dafa tolloog shibra mooy boo talalee su yaatoo yi baaraam nii nga jël ko ci suuf fekk da ngaa tooñ tuwiqahu yowma alqiyama min sabi aradin yowma alqiyama lu toll ne li nga jël borom bi dana wax malaaka yi ñu bëtt ko ba ci juróom ñaareelu suuf moom lañ lay wikk caqal la ko yowmal qiyaama te loolu jàpp naa ku ne xam na ne ni doomu aadama sori na ci lu mel noonu loolu it suñu ko suñu borom di nettali wala yonent bi di nettali firiwul ni jël suufas jàmbur mooy nga nangu toolam wala nga jël këram waaye ku xam àll bi boo laajee ñoom sëñ Njaay day gis ñoo xam ne diggu tool ca la ñuy reyante te mooy tool baa ngi yem fii tool bi mën na am dem na ba joor waaye digg bi séparé ñaari tool yi comme duñ ko bay dafay nangu day gis koo xam ne day teel a ñëw buy ruuj rek puus digg bi lu toll ak deux mètres masalan trois mètres mu jël ko yonent bi alayhi salaam ne nag daan ko bëtt ba juróom-ñaari suuf moom lañ lay wékk yowmal qiyaam loolee mbokk jàpp na ko ko xam dara du la ko jaral wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daana wax ne laa yaxillu maalu mri'in muslim ila an tiibi nafsihi te waay xam leen du dagan mukk jullit jël dara ci alalu mbokk jullitam lu dul ci teeyaayu bakkanam la ko ko joxe ay bu dul loolu du dagan ci yow mukk ahkaamuhu ana yenn atte moo mën a dab ki jël alali jàmbur ci force ahkaamul xasbi hiya attey noot alali jàmbur lañ cay jëkke mooy ta'dibul xaasib li xaqillahi taala bi sijnihi aw darabihi zajaran lahu wa li amsaali ka nga xam ne moo yor atem dëkk ba te gis koo xam ne daa jël alali jàmbur ci force nangu na fasam ah jël na këram ila axiri ku mel noonu mënees na koo tëj mënees na koo dóor ngiree keneen ku dul moom du def jëf joojee naam doonte ne ni xas bi bi wuti nag sàcc sàcc mooy loo xam ne da nga rocceeku def ko kenn yéegu ko ku mel ne moom dañuy dagg sa loxo mais alxaasib bi moom xam nañ ko dafa ëpp doole attekat bi am na droit jaar ak moom foofu ñaareel bi yajibu ala alxaasib raddu maxtasaba day war ci ki nga xam ne daa jël alali nit ki ci tooñ mu delloo lam jëloon wa in talifa fi yadihi daman damanahu bi misli su dee ba mu ko jëlee daa yàqu ci loxoom dana ko garanti jot ko ci lu mel noonu in kaana lahu misl su dee ñeel na ko lu mel ne lam jël ca kooke aw bi qim qimatihi wala boog mu remplacer ko ci valeur am loolu mi ngi noonu ñetteel bi man iktasaba shay'an fa asabahu bi aybin képp koo xam ne jël na lenn ci lu mbokkam am mu dugal ci benn ayib fawwata ala saahibihi algaradu minhu boo xam ne nii dana yàqal ka moo mën loolu jubluwaay ba taxoon ñuy ñuy jëfandikoo loolu radda mislahu wa aqaza maktasaba ku mel noonu dañ naan ko delloo lu mel ne la nga jël ñu ngi noonu nga féete wala nga xam ne yaa ko jël daal di ko yàq wa aqaza maktasaba wa aabahu ñu ngi noonu wa in tazara wa in taazara raddahu bi qiimati naqsi maahu waa ji dafa jël jëfandikuwaay yi jàmbur loole ba mu ko jëlee moom lu mu ca yàq dañ ne maadama yàq nga ko da ngay delloo lu mel noonu la nga yàq ba mu nga féetewoo ko su dee lu mel noonu mën a koo am ñu xool lan mooy xayma lam ci yàq nu mu toll su ko defee mu delloo lam jëloon boola ca xayma la nga xam ne moom la yàq ñeenteel bi xallatul maxsuub turaddu maahu kaamila ki nga xam ne daa jëloon alali jàmbur alal ja am lu mu jur ci loxoom bu koy delloo alal jaag lam jur yépp lay delloo wa zalika ka nitaaj alxayawaan aw xullati al ashjar mi ngi mel ne rek kii jëloon fasu jaambur ay xari jaambur ñu jur ci loxoom bis buñ koy delloo loolu lépp la ñuy delloo boroom ki jëloon toolub jaambur nekk di ko taxawee tool ba am meññent su koy delloo meññent yépp lay delloo aw ujrata dabatin masalan ki nga xam ne daa jëloon fas jaambur wala gileem jaambur ci tooñ ba pare luye ko bis booñ koy delloo lam jëloon ak lam lam jur ci lañ ci luye yépp dañ koy delloo boroom juróomeelu atte bi in kaana al maxsuubu ardan bu dee waa ji lam jëloon ca mbokkam suuf la fa bana fiha alxaasib mu daal di cay tabax ka nga xam ne moo ko jëloon ci doole aw xarisa wala boog mu daal di cay jëmbat lazimahu adamul bina wa xalul ashjar su boobaa dañ naan ko sa tabax bi yi ngi fi tabax yaa koy dajjil sa bopp garab yi ngi fi jëmbat yaa koy buddul sa bopp wa islaahul ardi lati lati fasadat bil binaa wal xars gannaaw ba it yéwénaal suuf ba nga xam ne yàqoon na ko te lam ca tabax wala lam ca jëmbat wa in shaa taraka ma banaahu aw xarasa doonte ne bu ko neexee mu bàyyi lam fa tabax ak lam fa jëmbatoon wa aqaza qiimatahu daa di jël la nga xam ne mooy qiima buy méngoo ak loolee loolu kon lay wax ci wàllu googee kon dana ko jël anqaadan mu nekk ci xaalis liquide wa zalika in radiya saahibul ard bihi su dee nekk moomoon suuf sa gërëm na loolu waa ji ñëw na jël toog kërub jàmbur daal di koy tabax ñu dem yoon atte leen ba delloo ko boroom dañ naan ko tabax bi nga fi tabax yaa koy toj génne xeer yeeg yépp yóbbu defaraat suuf yi ba mu mel ni meloon lu dul ni mën naa négocier ak boroom ñu xool valeur tabax bi ñaata la waaja delloo ko loolu féete woo del jëlaat teereem jëlaat la nga xam ne dañ ko ca tabax loolu it islam dana ko nangu yeneen ci bàyyi salaam nee na laysa li iraqi zalim xaq yeneen ci bàyyi salaam nee na kii nga xam ne mooy ñaqu aji tooñ amul aq ay ki tooñ effort ya nga def ca tooñ nga amoo ca benn aq mi ngi noonu juróom benn juróom benneel bi إذا اتجر الغاصب بما غصبه فربح رده مع الربح سديني nit ki daa jëloon ak li jaambur masalan jël nga jurug jaambur bi nga demee nga jaay ko nga am ci bénéfice bu bari loolee bu dee ne jàpp nañu la jur ga ca des da nga koy delloo la nga ci am ci bénéfice da nga koy delloo loolu la ñuy wax ci lépp loo xam ne am nga ci bénéfice juróom ñaareel bi ida ixtalafa alxaasib wa saahibu cheyin su dee ne dafa jooyoo ka këfoon ka jëloon alali jàmbur ak borom bokka moom fi qiimati almaxsuub aw sifatihi ñu daal di juuyoo ci valeuru lam jëloon ci doole wala ci melokaanam فالقول قول الغاصب بيمينه وخد داي نيك وخي ككف جلون علال جا بولك واتم ان لم يكن هناك بينه سديني آه نيكول دي ام بروف لصاحب الشيء المغصوب كاغا خامني موم موم لن جلون اي واجي نيونا ci gettuk jàmbur fekk ko fa jël fa benn xar masalan dem waa ji dem ci attekat bi wax ko na ko kii day dafa ñoo jël sama xar xar mi nag ñu jooyoo ci kii ne am koy la kii ne déedéet xar mu jigéen laa fa jël mu ne su booba attekat bi tey waatloo ko jël xar ma lam waat ci loolu lañ koy atte lu dul borom xar mi indi preuve ci lu wuteeg loolu juróom-ñetteelu atte ba ca mën a nekk man atlafa maala gayrihi bi gayri izn izni saahibihi koo xam ne daa ñëw yàq alali jaambur te borom alal ja joxu ko ci ndigal wajaba alayhi damaanuhu day war ci moom mu garanti loolu fay loolu wa zalika ka an yuxarriqahu ñu mel ne tey nga fekkoon toolub jaambur nga lakk ko wala magasin jaambur nga lakk ko aw yumaziqahu wala fekk yërëb jaambur nga xottite ko aw yaftaxa baaban muxlaqan aw qafsan wala nga fekkoon benn bunt bu ñu tëjee nga ñëw ubbi bunt ba ba jur ga ca nekkoon dem wala kaaf nga ubbi ko piccee ca nekkoon naaw aw wikaan aw ribaat wala loo xam ne nii dañ koo jëloon tëje ko benn mbir wala ñu yeewe ko benn mbir fay loolee nga dind ko ba fa mi nga noonu fa yat falat la nga xam ne nii moo ca nekkoon daal di rëcc maa kaana daaxil al bayt aw al qafs ba mu rëcc la nekk ca kër ga wala ca kaaf ga loole da nga koy fay te loolu itamit benn mbir la boo xam ne xaasib biñ jëkk a jàng ci daa jël moom ngir jëriñoo kee nag moom daa jóge fële ñëw fekk waa ji al yor alal la mu yàq ko yàq alali jaambur si jox ko ci ndigal su boobaa loolu da nga koy garanti mi ngi noonu juróom-ñeenteel bi alkalbul aquur xaj boo xam ne dafay nekk di matte yufarritu saahibuhu fi rabatihi ka nga xam ne moo ko moom sàggane yeew ko fa yaakula shaxsan mu dem ba matt nit yajibu alayhi damaanuhu kooku day war ci moom mu garantir loolu te gaañ-gaañ ya bu ca dee it day fay diya mi ngi noonu fukkeel bi daabatun tursalu laylan fa tatlufa zar'an jur goo xam ne dañ leen a yeewi guddi ñu dem ba yàq mbayum jàmbur ala saahibiha damaanuhu ka moom jur ga dafa war a fay loolu لقوله صلى الله عليه وسلم إن إن على أهل الأموال حفظها بالنهار يلنت بنين نيمم سن على الدي رواتنا توليا نيوكو ورا غارد بو بتك جوتي وما أفسدت بالليل فهو مدمون عليهم lépp loo xam ne nii ufsidat bi leyl dañ koy yàq ci guddi ga dañ leen koy garantir ay dañ leen koy fay te mooy ku miin suñu dëkk yi xam ne baykat yi ak sàmm yi ñooy dëkk su ko defee baykat yi dañ naan bu bëccëgee yéen a war a garder seeni tool yéen sàmm yi bu guddee yéenay garder seenu jur ba bépp jur goo xam ne guddi dem na ci toolub jàmbur lekk ko borom jur ga day fay borom tool ba ñu ngi noonu yéen a ngi koy jàng ci qissa suñu borom subhanahu wa taala di wax ci daawud ak suleyman ba ñuy atte ca toolub jàmbur in nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin mooy ña bàyyi woon seenu jur ca guddi ñu dem lekk toolub jàmbur bañ ñëwee ci yonentu yàlla suleyman ak yonentu yàlla daawud ngir mu atte leen suñ borom mu ne atte ba dama koo xamal suleyman donte na ñoom ñaar ñëpp ay yonente lañ ñoom ñaar ñëpp am nañ atte ndax daawuda moom la mu gisoon rek mooy ñii seen tool bi rek lañu yaakaaroon ñii bàyyi nañu seen jur ñu ñëw ci guddi lekk tool bi yëpp mu ne kon yéen borom borom tool bi jëlal jur gi yóbbu dégg nga jëlal jur gi yóbbu Souleymane na ko ah man de bàyyi bu doon mën a du ma attee noonu mu ne ko ah nooy attee mu ne man kay mu doon dama naan kon léegi yow borom tool bi jëlal jur gi léegi di ratt ci soow soow mi nga xam ne nii mi ngi ci jur gi nga ci ratt di jëfandikoo ay yéen borom jur gi dem leen ngeen jëmbataat toolu waa ji jiyaat ko ba mu toll na mu tollaat ba ko seen jur di lekk ngeen doog a jël seenu jur ciy jëraat ab toolam kon lañ ca doon jël comme tegtal rek mooy ku bàyyi sa jur mu dem ci toolu jàmbur guddi da nga koy fay bi ci mujjoon mooy daabatun biduni raakib aw aw saaiq bépp jur goo xam ne kenn waru ko kenn wommatu ko faslaam gilim laam lu mel noonu tatlufu shay'an fala damaane fiihi jur goo xam ne kenn wommatu ko moom moo doon demal boppam rek lam yàq kenn du wax borom jur ga kaay nga garanti ko xanaa lu dul lu mel ni liñ ci wax ci gannaaw mooy guddi yeewuloo ko li xawlihi sallallahu alayhi wa sallam al ujamaau jubaar yenent bi nee na la nga xam ne muy jur gi lañ yàqal seen bopp loolee day neen ay ku nekk yaa war a fegu ba gilim du ñëw di la matt wala fas ñëw di dal sa kaw yaa war a fegu amma boo sàggane ba loolee la dara lor la ci loolee da ngay gis ne dañ koy neenal allahuma lu dul li mu wax ci kaw mooy xaj boo xam ne day màtte ku mel noonu moom bokkul ay jubaar ba mooy hadrun batil ay dañ koy neenal amul lenn loo cee mën a topp kenn wa kaza in kanat markuba wa atlafat bi rijliha mu ne naka noonu bu dee jur ga dañ koo war gilim gi dañ koo war fas bi dañ koo war am ku romb mu wéq ko kookee loolee mu wéq ca tànki gannaawam ka ko war moom du ci responsable ñu ngi noonu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam rajulul ñu ngi noonu mu ne rajulul ujama jubbaar tànki la nga xam ne dañ koo warlul dañ koy neenal amma ma tatlufuhu bi fammiha aw bi yadayha bu dee nag lam yàq ci gémmiñam wala ci tànki kanamam fekk waa ji mën ko war loolu ko koy war moo cay responsable fa madmunun ida kanat markuba ku mel noone moom lépp lu mu yàq dañ koy garanti su dee ne kay waa ji dafa nekkoon dafa nekkoon loo xam ne dañ koo war waaw mbokk kon lii moo nekkoon bind bu jëkk ci wàllu ci jël alali jàmbur wala ki yàq alali jàmbur nii la sharia wax ak moom su doon te ne ne am na laaj boo xam ne day aju ci loolu tamit mënees na koo jël bala ñoo dugg ci suñu buntu ñaareel bi incha allah su dee ne am na laaj bu jëm ci liñ doon wax alxaasit naam bismillah su dee ne sa sàmm bi ci boppam moom moo ko tey yóbbu ak juróom ci toolu jàmbur loolu guddi ak bëccëg ñoo ci bokk yem loolee day fay amma nag bu dee ne dañoo dëkk ci dëkkawaay boo xam ne ñii dañuy bay ñii dañuy sàmm islam moom nan la prévoiroon mooy yéen ñiy bay bëccëg na ngeen sàmm seen tool amma buñ demee tey jii ba jant bi sono guddi jot na suba ba mën ngeen dem tëddi yéen waa jur gi tey leen seen jur guddi gi képp ku bàyyi sa jur yàq toolu jaamur da ngay fay bokkul nag ak li xew suñ jamono yi tey nga xam ne des fois état yi ñooy ñooy ñooy séddale daal di ne yéen ñii sàmm yéen a moom côté àll bi ñiy bay féetewoo fii loolu moom buñ ko xisee ba séddale guddi ak bëccëg ñoo ci yem képp koo xam ne génn nga fañ la rëddal bàyyi sa jur yàq toolub jaambur bu dee guddi ak bëccëg yépp du tee moom da nga koy fay wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam bépp alal boo jël ci la aaya bañ ubbee mooy laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil bu na lekk seen alal ci neen boo xoolee forme yi mu wax fii yépp loolu bari woon na lool ci àll bi waaye suñ jamonoy tey moo gën a grave suñ jamonoy tey moom da ngay gis la nga xam ne moom la ñuy tudde ay litige foncier kenn xamul nu mu toll président bi rek mas naa ko dégg muy wax naan li muy jot par semaine ci litige ci ay tool ak i suuf kenn xamul nu mu toll te loolu am na ñoo xam ne nii loolu mooy seen liggéey dem jël toolu jàmbur wala dem nangu këru jàmbur yéeg wàcc daal di koy jël ci la nga xam ne mooy neen day am ci société yi day am ci lu mu mën a doon ala kulli xaal lépp loo xam ne alal la boo jël ci doomu aadama te bi nga koy jël da nga koo jël ci tooñ loolu rasb lañ koy tuddee da nga noonu da nga koo jël ci tooñ mu xam ne yooyu mi yaa ko jël ci rasb lañ koy jël dañ koy tuddee bokkul nag loo xam ne dañ koo sàcc nga xam ne moom kenn xamul ku ko jël suñu xamee sàcc ba am na leneen atte waaye daal al rasb mooy képp koo xam ne da ngaa jël alalam ci tooñ léegi-léeg ay benn famille lay doon masalan ñii seen bàyyi dee na bàyyi leen kër nga gis mag ji ñëw féetewoo kër gi loolee tooñ la gis ñoo xam ne seen bàyyi bàyyi na masalan oto bu am valeur nga ñëw taw bi ñëw féetewoo ko loolu lépp da ngay gis ne loolee ci xas bu lañ koy tuddee mi ngi noonu ani que semaine bi ñu génne rek am na benn soxna bu ñëw di ma wax lu mel noonu jëkkëram dafa dee mais dañuy gis ne ña nga xam ne nii mooy doom yi ak frères yi comploté jël alal ci génne ko ci kaza wa kaza almuhim mooy bépp alal bu doomu aadama di moom suuf la waruwaay la alal liquide la ak lu mu mën a doon képp koo xam ne def na fexe ba jël ko loolu ras bu lañ koy tuddee te lu yàlla xaraamal la wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam naam waa ala kulli xaal atte moom du nekk loo xam ne nii lu sax la waaye la shakka ne atte boobu suñ borom yàlla moo ne fa fahamnaha suleymaan ñun ñoo xamal suleymaan naka lay atte mbir ba te loolu itamit mooy suleymaan ba mu koy atte gisoon na masalan ci jur ga ne jur gi kat bari nañu ay xar yu jigéen wala ay nag yu jigéen yoo xam ne borom tool yi mën nañ ci sukkandikoo ba baa seen tool bi di ñoraat bu doon te ne ne nekkul woon jur gu mën a génnam soow loole day am beneen atte su ko defee atte moom dañuy gis ne dafay changer ci jamono dafay changer ci place loolu moo tax ba noonee su lay mën a atte woon bépp atte bu méngoog loolu mooy ñu bay lekk toolub jàmbur ca jur ga ñuy ga lekk tool ba waa tool ba mën nañ ca ratt soow mu ñuy dunde ba ba seen tool di mel na meloon bépp attekat bu xam loolu warul atte lu suufaanoog la suleyman atte amma nag buñ demee ba atte yi wuute su boobaa moom day xool lan mooy méngoog loolu mu dog koo def wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam waaw moom bu dee ne la nga xamee ne nii moom mooy ak jur lépp loo xamee ne nii dañ koy daf koy yàq te ba mu koy yàq boroom yéegu ko loolee dañuy gis ne yow ma nga xam ne yaa moom sa alal yaa war a fegu ba jur ga bañ la yàqal mais jur moom lu mu defal boppam kese loolee dañ naan neen lay doon bokkul ak nag koo xam ne yaa ko tey di xirtal sa jur ñu dem di yàqi mi nga noonu waaye daal bu dee ne moom ci boppam defu ca benn effort aada bañ aada woo mooy jur yooyu kenn du leen yeew dañ leen di bàyyi su boobaa ña dëkk ca dëkk ba yor seeni lu yàqu ñoo war a fexe ba jur ga du ñëw ci ñoom loolu moo tax yonent bi alei salaam ne bàyyi ma yi moom luñ yàqal seen bopp loolee dafay doon loo xam ne ak neen lay doon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa ala kulli xaal kon mën nañ dem ci beneen bind bi mu ni beneen bind bi mooy alluqta mooy lu ñu for mooy ak for wala xiit ak la ñuy for ak luqta mooy laqiit mooy koo xam ne nit la moom ci boppam amma luqta huwa shay'ul multaqatu min mawdi'in ghayri mamlukin li ahad mooy loo xam ne dañ koo for ci place boo xam ne kenn moomu ko ci digg yoon ba nga ko fekk wala ci digg àll ba nga for fa dara wa zalika ka an yajida al muslim bi tariqin ma ñi ngi mel ni jullit fekkoon ci benn yoon darahim ay dërëm xaalis aw siyaaban wala yére fa yaxaafu dayaaha fa yaltaqitaha mu ragal ne lii de bu ma ko fi bàyyee mu sànku mu daal di koy for xukmuha lan mooy atteem yajuusu iltiqaatu luqata dana dagal ñu for la nga xam ne dañ koy for li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lamma su'ila anha ndax yonent bi kat bañ ko laajee ci loolu mu ne ko iraf xifaasaha wa wikaaha mu ne ko heure boo xamee ne da nga for dara da ngay xamle lam nekk ci mbuus ak la nga xam ne moo ko yeew summa arif an sana gannaaw ba nga xamle ko at fa in jaa saahibuha su dee dikk naka ko moom xayrun wa illa fa sha'nuka su boobaa bu dikkul kon nekk sa mbir te mooy waa ji dox na ci àll ba mujj mu for benn mbuus xam nga bu jëkk mbuus rek ci li ñu daan def xaalis léegi mu ne su boobaa da ngay dem ca place yi nit ñiy daje man kat for naa fi benn mbuusu xaalis bu xonq ñi ngi koy yeewee buum gu weex su ko defee loolee nga xamal ko nit ñi ñu gar nga garde ko it diirub at su dee ne boroom ñëw na nga laaj ko mbuus mi lu ci nekk mu détaillé la ko nga xam ne moo ko moom soo ko gardee at gisoo boroom su boobaa bu la neexee jëfandikoo ko boo ko sarxee mooy la gën wa su'ila an daalatil ghanam ñu laaj ko ba tey ma yumi yàlla yónni kiy dox ci àll bu mujj gis fa benn xar wala bay bu réer nag fa qaala xuzha yonent bi ne ko jël ko fa hiya lak aw li axiik aw li zib mu ne ko bu immaa nga jël ko wala beneen mbokk julit romb ko jël ko wala til gi lekk ko maadaama ci diggaal ba nga ko fekk kon jël ko gayra annahu yustahabu iltiqaatu liman yasiqu bi amaanati nafsihi lu dul ne sopp nañu buy for kay for di denc mooy ku wuulu boppam wa yakrahu wa yukrahu liman la yasiq fiha fi amanatiha koo xamee ne nii wóoluwul kóolu teg boppam sib nañ ci moom muy for di ko denc istaadidu amwaal muslimin li talafi la yajuz ndax dem di gaaru ci alali julit ñi di ko yàq loolee da ngay gis ne nekkul loo xam ne ni lu baax la am na benn mbokk bu ñu nekkal fii ci jàkka ji jazahullah xayran ma sañ nettali ne toog nañ seen service lu jege trois mois fayu ñu leen nee na mu ànd ak gaa yi wàcc ñu dem ba ci diggi mbedd mi rek mu for fa benn kalpe ubbi ko gis ci ay billet yu bari nee na ma ne gaa yi xaaral ma dem jox ko borom biti bi ñu ne ba yow da ngaa dof ñun lii xéewalu ko yàlla indi mu ne leen déedéet man dama koy yóbbu parce que lii duma ko yóbbu sama kër comme ay weere ngi maa nekk jafe-jafe moo ko yóbbu dama koy lekk léegi dama ko jox borom bitig bi bu ko gisee borom xëyrun bu ko gisul xëyrun te loolu mbokk da ngay gis ne loolu mooy mbir bi lépp loo xam ne wóoluwoo ci sa bopp galawaay bu ko jël di ko di ko di ko denc te itamit bari na lool koo xam ne di day sàggan ci loolu loolu mbokk moo taxit ba am na ay atte lu ci lislaam teg te mooy ahkaamuha ahkaamu luqtahiya atte yi nga xam ne dañ koo teg ci lu ñu for atte yii la bi ci jëkk in kaanat luqtatu taafiha bu dee ne la ñu for lu ñàkk solo la bi xaysu la tatbi'uhu hëmma hëmmatu awsati aw awsati naas himmatu awsatu naas bu dee ne loo xam ne dafa ñàkk solo ba la nga xam ne moom mooy xéruk la gën a diggul doomu ci nit ñi duñ ko topp wa zalika ka tamra mi ngi mel na ngay dox gis bi ne tàndarma mi ngi noonu wa habba wala gis lenn ci pep ci doomu inab benn doomu raisin aw al xirqa baliya wala sagar bu rab aw sawt wal asa wala gis benn yar wala benn yat fa innahu la ba'sa bi iltiqatiha وللم وللمت نعم ولي ولملتقتها انتفاء بها في الحال كnga xam ne moo ko for bu ko neexee jëfandikoo ko ci saasi walaysa alayhi taarifuha du war ci moom mu dem di ko yëgle di ko xamle wala lihtifaaz biha wala naan da koy garde wa zalika li qawli jabir radiallahu anhu ndax jaabir daana wax ne raxasa lana sallallahu alayhi wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance yonent bi yombaloon nañu ci yet yi wa sawti ak lii di yar yi wal xabli ak buum ya wa ashbahihi ak lu mel noonu yaltaqituhu rajul fa yantafiu bihi mu daal di koy for nit daal di koy jëfandikoo mbokk day wax fii rek ci ne for dafa am ñaari façon for nga forloo xam ne wóor na la ku ko réer la moom du ko wëri ku ko réer la moom du ko wëri loolu foo ko fore bu la neexee jël ko jëfandikoo ko bu dee aajowoo nga ko dox ci yoon bu da nga gis benn yat wala benn buum wala benn sagar wala gis quelque doomi tàndarma wala lu demee noonu mi mel ne tey rek ba doon dox gis benn cent franc ci mbedd mi wala benn kayitu mille franc wala yu demee noonu la chaque année yu mel noonu kenn du jóg di wër naan da nga koy wëri ku mel noonu moom boo ko foree mën nga ko jëfandikoo ci saa si amma ñaareel bi mu ne nag in kaanat luqtatu mimma tatba'uhu himmatu awsati nas awsati nas bu dee ne nag la nga for dana ko topp ak ittewoo ña gën a digg doomu ci nit ñi moom buñ ko réer li daañ ko wëri wajaba ala multaqatiha an yuarrifaha sana sanatan kamila day war ka ko for mu daal di koy xamle at bu mat sëkk yu'lanu an anha inda abwabil masajid xamle ko ci la nga xam ne moom mooy buntu jàkka ya fil mujtamaat ak la nga xam ne mooy dajawaayu nit ña mujtamaat am aw bi wasitati sahafa wala xam la ko ci journaux yi wala izaa ak ci rajo yi fa in jaa saahibuha bu dee dikk na ka nga xamee ne nii moo ko moom wa arrafa wi'aaha mu daal di xamle la nga xam ne moom lañ ko denc aw adadaha wala mu xam limam wa sifaatuha ak melokaanam ataahu ataahu iyaha mu delloo ko loolu wa in lam yaji fu dee dikkul nag baada al xawli al kaamil fekk gar na ko at intafaa biha mu daal di koy jëfandikoo aw tasaddaqa inshaa wala mu daal di koy sarxe bu ko neexee walakin bi niyati damaniha ànd ak yéene ne moom kat li dana ko garanti law jaa saahibuha yowman yatlubuha heure bu dikkee ka ko moom bis di ko sakku kon bokk ñaareelu for bi rek mooy for nga loo xam ne am na valeur li nga for am na valeur léegi nag loolee da nga koy war a xamle ci loo xam ne nii jaadu na doonte ne li mu wax fii da nga koy xamle ay un ak yooyu soo demoon ci yeneen borom xam-xam xëy na wax nañ ci yu gën a jàppandi ndax jamono bii ñu toll en général nit ki li nga réer le néew na nga koy topp di ko wër lu ëpp ay un mois deux mois ila axiri almuhim daal jamono bu nekk ak waxtu wu nekk dafa am temps raisonnable boo xam ne nii jàpp nañ ne ku doon wër aji aji lu réer tàyyi nga ca soo demee ba jàpp ne borom dootul ñëwati su boobaa nag mën nga ko jëfandikoo gannaaw loolu imma nga jëfandikoo ko bu dee aajowoo nga ko wala nga sarxel ko borom bis bu borom ñëwee nag nga daal di koy fay delloo ko loolu mi ngi noonu jàpp naa mbokk jullit waxtu bi presque li ci des bariwul léegi dañuy doyloo loolu di ñaan borom bi subhanahu wa taala li ñu fi jot a jàng yal na yàlla subhanahu wa taala barkeel ko yàlla sàmm ñu sàmmal ñu suñu alal wa ba sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain la nga xam ne moo ay naan naanukaay bilim mën na toog un mois du naan te tànkam mën na ko yóbbu mu lekk ci garab yi kon bàyyi ko ba borom ñëw jëlal ko boppam mooy nag lu mel noonu la ñuy wax aussi ci fas yi ñuy bërgal ak mbaam yi ñuy bërgal soo laajee si waa Saalum yeeg yooyu am na ñoo xam ne ba nawet jotee dañuy bàyyi seen mbaam yi bàyyi seen fas yi ñu dem ñu nga noonu ba bët séb bi léeg-léeg sax jur gi ñooy ñëwaatal seen bopp wala ñu dem wëri leen ba gis leen mu ne fas yooyu ñuy boyal ak mbaam yooyu ñuy boyal dajeeg ñoom ci àll du tax mukk nga ne yaa ko moom amma nag bu dee alxanam mooy xar wala bëy nga dajeeg moom ci manding moo xam ne kenn dëkkawoo fa loolee moom boo ko jëlee loolee da ngay gis ne dara nekku ci loolu la tëjee dars boobu nga xam ne mooy jël alal ci loo xam ne du àq mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam allahuma lu dul xëy na mbokk yi amoon beneen laaj na doon ajji na ci dars bi wala ajuwu ci ci la nga xam ne moo ci des su di am na incha allah naam mu ne waaw waaw day wax ne gars yi léegi lu ñu for dañuy for rek dugal seen poche dem waaw ala kulli xaal loolu moom jaaduwul loolu moom jaaduwul képp koo xam ne for nga rawatina la nga for am fu mu nekk for nga lu nekk ci kalpe for nga lu nekk ci mbuus loolee moom fa nga ko foree ñu sës foofu war nga leen a xamal ne for naa fi nangam xaalis bi ngay dox ci mbedd mi for ko muy loo xam ne nii lu doomu aadama mën a dem di wëri la lu mel noonu it ña sës foofu war nga leen a xamal laa soo fi déggee ku laajte xaalis day am na xaalis moo for fii su ko defee borom xaalis ba bu ñëwee fekkee yow bàyyi nga fa say coordonnées su ñëwee xamal ne la ne xaalis bi nii ak nii la nga nga nga delloo ko ko boo ko gardee nag diir boo xamee ne nii dem nañ ba wóor na leen lii moom kenn dootu ko laajtee ci su boobaa la gën mooy nga sarxe ko ñeel boroom nga am ci tiyaaba moom ci tiyaaba su dee da nga koo aajowoo it boo ko jëfandikoo kenn du la yedd ci loolu mi ngi noonu xanaa daal di gaa yi caricature rek ne waa ji daa ñëw daal di indi benn calpe ki kilifaam bi nekkoon na ko waa foo jële lii mun na kii de dama ko far mi ngi mi ngi wadde ci caay men bu sor xaftaan bu weex mu ne ko kon koy demal delloo ko ko la nga xam ne gis ko buy wadde kay kooku du ak for yaa ngi dégg waaye nag comme niñ ko waxee rek koo xam ne nii attan ngaa dab jàmbur rocc ci poosam ah bu waddee moom waxi nag mi ngi noonu wallahu aalam waaw naam bismillah naam wala kulli xaal bokk na ci lu borom xam-xame di wax mooy su dee yégle ba danga caa def ay effort masalan lu mel noonu ne publicité ko te it léeg-léeg ñu gis ay nit ñu baax ñuy publicité ci rajo yi naan masalan sama taxi fàtte nañ ci tel tel tel ak yu deme noonu bu dee def na ci effort loolu mu am na droit fayoo ko waaj waaye waaj ci boppam it su gisee nit ku maandu koo xam ne nii foral na ko alalam gardeel ko ko ba mu ñëw li wóor la nga xam ne mooy jukku ju rafet lam digle mooy même bu ko laajul mu jël ko jox ko waaye nag ka nga xam ne moo ko for moom da ko war a def te yàlla tax waru koo wax ne sa alal a ngi nii da nga ma ci jox temps déedéet lam ca coobaru jox ko daal loolu moom bu ko ko joxee mën na koo jël waaye nag amul droit di ko ko imposer wallahu subhanahu wa taala aalam naam li ñu doon wax ci frais yi masalan te ji jëloon nga foroon nga ak ay ak jur di ko dundal di ko dundal di ko dundal ba ba borom ñëw am nga droit na ko kat ah jur gi fere naa ci temps loolee moom mu delloo la ko boo ko deful ci yàlla tax wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw ala kulli xaal kon mbokk yaakaar naa mënees na waxtu bi jot na waaw ñu mujj ci mbokk bi rek waaw bismillah waaw waaw bismillah waaw waaw nga ne dafa am ku dugal sa sa compte xaalis di la ko dénk waaw léegi nag mu dem ba xaalis am na at mat nisaab moom mu war caa génn zakat ah bu dee daf la koo dénk kay li nga man mooy laayu ko biir na ko diw xaalis bi nga ma dénk day xamal ne zakat war na ci su ko génnee xayrun su ko génnewul kooku bakkaaru boppam la parce que même yow boo ko génnee moom doom tuyaabay zakat fokk moom zakat ki ko moom moo ko yéene génne ko mi ngi noonu à moins que mu doon koo xam ne nii dala bàyyee xaalis bi yow yaa koy gérer ci frais yëpp yaay def ak yaay def yëpp ku mel noonu nga xamal ko bu baax ne ko xaalis bi ma yor danaa ciy génn zakat su boobaa mu jox la ci ndigal ci loolu ndigal boobee moom dana doy waaye bu dee ne moom yëgul ne yaa ngi koy génneel zakat wala da nga ko koo wax moom nanguwu ko def boo ko génnee it moom du ci am tuyaaba mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam